UNICEF li yëkkati woon mooy njàngu xale yi fexe ba xale yi jàng ak mag ñi tamit ñu tàggat leen ci wàllu examen et concours. Ah, ci wàllu objectif nag mën nañoo wax ne yar teggin ak liggéey moom daal moom lañ gën a teg ci kanam. mbokk yi yéen parents d'élèves yi deke quartier Fayu Mbour 1 2 ba 3 Sud Stade Lat Cité l'ami. Kër samba Gueye fàttewuma waa parcelle asseni, Grand Thiès ak yen yéen ñi bëggal seenu njaboot am njàng mu mucc Institut du savoir et de la formation ISF ubbil na leen ay Institut du savoir et de la formation Nek ci quartier Fayu 1 ci virage police bu parcelle asseni, ISF ay mbébétam ñooy culte de la discipline et de l'excellence Éducation à la citoyenneté civisme et éthique, protection de l'environnement, l'attachement aux valeurs, l'esprit d'ouverture, la réussite scolaire et professionnelle ci Dal, domo Domo doomu yigun ci Girmounek yi Kui ngir mu kuy di jariñ njabootam di l'ISF barabu Sakukayu xam-xam bu indi lu bees luy gën Fichi sunum Rio, indil na crèche buy dalal cuux scolaire, préscolaire petite moyenne et grande section cycle élémentaire moyen secondaire institut du savoir et de la formation barab bu Karangé ak matériel didactique de qualité ISF di Namptal élève qui yi nek préscolaire ci anglais informatique ak arabe indiwaale lu bess muy préparer képp ku bëgg def examen concours ENA douane police gendarmerie ak école yu mag yépp CAP CAP ENDSSS ANTES etc inscription yi excellent ba ISF quartier Fayou qui virage au police parcelle Asseni. Mangena Wote, qui 77 358 13 00 77 238 83 82 et 77 655 40 80 suñu mail isforma 70 mbokk yi ak xarit yi asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci seen euh, émission spéciale euh, bi nga xamante ne tey ñu ngi koy defee fii nga xamante ne mooy ci lew Léona euh, fii ci Thiès daal di nag chercher des jeunes très entrepreneurs Euh, ñu gis leen nag ci terrain bi à chaque fois tax ñu am ak ñoom jotaay bi nii ngir waxtaan ak ñoom bu ñu waxee jeunes yooyu nag day nekk jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk ci parti bii di alternative pour la relève citoyenne bu ñu ko waxee xel yi dem ci Anta Babacar Ngom Anta Babacar Ngom candidate à la présidentielle yu la euh, ay ndaw nag teewal ko fii ci Thiès euh, ginnaaw nag liggéey bi nga xam ñu ngi ko amal sur le terrain tax ñu sekk ak ñoom waxtaan bi ngir gëstu parti boobu nga xam ni parti bu yees la ci arène politique bu bu Sénégal toogal nag jigéen la muy wane ni kon am na ay cohabitation yu am ci arène politique bu Sénégal ndaxte bu jigéen jiitee parti chargé de com ba nekk jigéen day am lu bëri lu muy firndeel te nañu ngi toog ak soxna ma jigéen sëy euh, di euh, kenn ci parti bi nga xamante ne mooy arc alternative pour la relève citoyenne euh, soxna ma jigéen nag mooy chargé de communication ñu amal nag c'est que moom laa jël tontu ci liggéey bi nga xam ñoom ñu koy amal ci Thiès mais également gis-gisu parti bi ci politique gu Sénégal soxna ma salaamaaleykum. Euh, ñu ngi lay ziar euh, di la bàyyi nga nuyoog euh, suñuy mbokku internet. waaw Mouhamed maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp aussi. Euh, di jiital ci sunu nuyoo bi sunu président Arona Ndiaye. Mhm. bi nga xamné mo moo nekk euh, sunu président ici à Thiès. Mhm. Euh, arc bu Thiès. Mhm. ak tous les membres de l'arc de Thiès. ñu leen di nuyu ñoom ñëpp man nak ma ngi tuddu ma jigen sëy chargé de communication du mouvement ARC. raison de Thiès. alternative pour la relève citoyenne en liggéey sunu Sénégal. merci ñu ànd ci sunu candidate Anta Babacar Ngom. wax nga ko Anta Babacar Ngom ndax mën nga ñu wax moy kan. waa Anta Babacar Ngom Mouhamed soo ma waxee euh, laajee si moom dama ci gën a gën a gën a gën a kontaan mhm. parce que Anta Babacar Ngom nekk na femme battante boo xam ne ñëpp reconnaître na ko partout en Afrique du ma ne au Sénégal ndax Anta euh, euh, mi ngi gane si àdduna en 1984. Mhm. Pikine fu ñuy wax Pikine banlieue. Mhm. ci Sénégal kon Anta nekk na femme boo xam ne fi mu juddoo muy Pikine. ku nekk xam na ne foofu ñu bëri jaar nañ fa. waaw léegi nag après Anta bi mu amee bac. Mm. dafa dem jàngi ji Europe. Mm. si la amee licence en économie. Mm. amaat jógee jógee jógee Canada bi mu jógee Canada ci la dem euh, Paris. am fa tamit master 1 ci mu resté waat Paris amaat fa master 2. après nag bi mu paree ci la ci la ñëw rejoindre l' entreprise familiale euh, muy Sedima. Mm-hmm. foofu noonu Anta euh, def na fay stage mhm. euh, naam ka nee nañ euh, nit ki bala ngaa kii dara faaw nga nga nga jàng ko ndax loo doo doon taalibeem doo doon sëriñam mhm. léegi en 2015 ci lañ ko nommé directrice générale du groupe Sedima mhm. Anta nee na ne du yem foofu parce que dafa nekk femme battante Sénégal mu créer benn parti boo xam ne ñu ngi naan ko ARC parti bu bees tàq demewul coalition dafa demee parti bo mhm. xamné mom kessé mouvement bi nak ñing koy wax ARC mhm. alternative pour la relève citoyenne and liggéey suñu Sénégal macha allah waaw euh, wax nga ko euh, defe naa ni seen euh, njiit ku discrète la wala bok ku discrète la won depuis biñ koy xam mais ñu jékki-jékki gis ko mu dugg ci arène politique bi mu nekk benen domaine benen monde euh tay lan mo waral wa arc jug rek ne dañuy dugg ci politique ngir comme niñ ko xé liggéey suñu Sénégal. lu waral lolu waaw parce que Anta gis na euh, Sénégal féppay metti gis na Sénégal légui li fi xew actuellement. Hmm. metti na ndax Covid bi fi jaaroon nek na lo xamné si tamit. euh du ci bëri mom motivé nako motax mu lancer sa candidature. Hmm. ndax Covid bi dafa laalon domaine yépp hmm. économique euh, laal domaine yépp santé fépp daal tous les secteurs primaire secondaire tertiaire daf koo laal Covid bi léegi nag Anta mu xool loolu mu ne pourquoi pas mënuma lancer sama candidat pour jàpp jàppale Sénégal ñëpp pour difficulté yi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund. Mm-hmm. bu ko defee Anta bu ñëwee loolu rupture am. Mm-hmm. loolu moo ko motiver parce que gis nañ ne Sénégal toll na ci difficulté yoo xam ne metti na. Mm-hmm. ndaw ñi amuñu liggéey. wàllu euh, économie bi doxatul mbay mi noonu. Mm-hmm. Euh, ci domaine yépp daal loolu moo motiver Anta mu ne moom day poser candidat te incha allah. Mm-hmm. Eh, yàlla dina def moom dina atteindre objectif am. incha allah mm-hmm. waaw nekk candidat yow mën a de waaye doon ko. jafe na parce que defe naa ni euh, déclarer sa candidature moom yomb na waaye nag bu ñu xoolee yi nga xam ne war na nekk seen kanam muy parrainage beeg yu ni mel. Euh, far ngeen si toll parce que defe naa ne moom balaa ngeen samp seen nënd doon candidat mu kay parrainage day daal di mat conseil constitutionnel validé ko. bon parrainage bi nag on est prêt. parce que pare nañ ñun ndax ñun am nañ jeunes yoo xam ne yu dynamique yu engagé yoo xam ne. Mm-hmm. ñi ngi sur le terrain du matin au soir. Mm-hmm. kon ñun wóolu nañ suñu bopp dee maintenant parce que ñoom ñi ngi liggéey euh, bëgg nañ bala ñoo euh, collecter nag ñun ñu déposer suñu liste ah bon te pare nañ wóolu nañ suñ bopp aussi macha allah waaw baax na loolu mu ngi suñu kanam mais euh, yéen yéen a nekk Thiès comme li ma koy waxee léegi suñu njëlbeenu wax yor liggéey bi fii à Thiès alors liggéey bi nan lay doxee waaw liggéey bi moom ñi ngi ci

Mouhamed wóolu nañ suñu bopp te incha allah dañuy dem. Mhm. ci kàttanu suñu borom. Euh, ngeen nekk équipe boo xamante ne bon li ñu fi fekk ay ndaw la essentiellement defe naa ni ki ci mag waragul am sax trente trente six ans wala boog quarante ans matul en tout cas alors euh, ay ndaw yu ànd di bëgg a jàppale ab ndaw lu waral loolu parce que c'est pas une chose facile. waaw ndax dañ ne ndaw. Mhm. mooy magu ëllëg. Mhm. te ndaw dafa nekk loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ndax mooy développe développement durable mm-hmm. mooy loo xam ne si mooy tax réew mi jëm kanam mm-hmm. ndax mag ñi moom wii nañ ba pare kon ndaw ñi lañ war a jàppale teete leen gunge leen wan leen yoon bi mm-hmm. bu ko defee ñu xam Sénégal fan la mën a jëm ndax ku nekk xam ne ne Sénégal pays euh, sous-développé la kon bu bu nekkee en voie de développement ndaw ñi ñoo koy mën a yóbbu foofu. absolument moo tax ngeen euh, jiital ñi nga xam ni mooy. xale yi mooy ñu jiital ndaw loolu lu baax la euh, ndax mën nañ xam programme mu Euh, exactement ci lan ngeen basé sen programme pour convaincre ñi nga xamantene moy euh, population duma ne yi parce que bi ñu nee vote amna na mag ndaw amna na amna jigen mais ban programme ngeen di tek concrètement pour convaincre Sénégalais ni Anta Babacar Ngom moy la la candidate idéale pour ñu voter ko en 2024. waaw programme bi tek nak euh, Anta Babacar Ngom xol na né ins bi njàng mi dafa xawa am problème. Mm-hmm. parce que boo xoolee à l'élémentaire dañuy jël euh, xale yi euh, duñ leen jàngal anglais. Mm-hmm. dañuy bàyyi bañ dem ay collège yooyu di leen jàngal Anta nag dafa ñëw programme bi mu teg. Mm-hmm. à l'élémentaire xale bi bu amee 6 ans. Mm-hmm. à l'élémentaire day jàng anglais. macha allah ndax anglais c'est langue universelle. aussi tamit ci wàllu économique bi. Anta pare na pour jàppale jeunes yi. absolument Anta pare na pour jàppale jeunes yi. ndax jeunes yi ku leen euh, euh, comme ici à Thiès boo xoolee Jakarta maan yi ci Jakarta bi rek la ñuy dépendre pour mën a satisfaire seeni i besoins. Mm. dañuy dañuy dañuy obligé ñoom euh, di di def ay natt di dajale lu ñu am boole mën a satisfaire seen i besoins. Anta dafa ñëw ci wàllu agriculture ku ne xam ne ne. mbay mi mm. opérateurs yi sonnu nañ mm. kii agri nu mu tuddati mbay yi sonn nañ dañuy bay seen gerte ba pare duñu gis ku ko jënd muy yàqu mm. am moyens yi tamit mooy loolu mm. mooy nekk na moyens yoo xam ne si mm. ñoom nekkul amuñu ay tracteur amuñu ay pluie artificielle euh, nawet ba nawet la ñuy bay lu ci mel ne aussi euh, euh, wàllu pêche bi gis nga jeunes yi amatuñ dara ci géej gi da leen di motiver ñoom ñu naan Barça wala Barça mhm. Anta dafa bëgg rupture am système boobu noonu dañ fi mhm. rupture am bu ko defee jeunes yi rester fii mhm. apprendre pour entreprendre créer seen petite moyennes entreprise mu doon développement durable waaw euh, boo xoolee aussi ci wàllu ci wàllu euh, Sénégal am nañ pétrole am nañ gaz am nañ phosphate donc ñun suñu réew liñ fi am Anta dafa bëgg ci domaine yooyu yëpp bëgg na jàppale ndaw ñi ba chômage du am te incha allah 2024 ñun pare nañ euh, toog ca pale ba ba ba suñu objectif ñu atteindre suñu objectif te incha allah yàlla dina ko def. Mm-hmm. wax nga ko léegi pétrole ak gaz bëri na euh, ñoo xamante ne tey ñu ngi koy wax euh, exploitation bi bientôt mu tàmbali. mais li ci ñuy rek moy qui dundé am ño mais ci population euh, avec vous nan ngeen euh, fas pour démocratiser fonds yi nga xam dina génn euh, stratégie bu ñuy doxé ndax lépp dañ koy jaarale mm. leader dafa ne. Mm. pour langue politique pour pour intérêt personnel. Mm. non non dafa def intérêt général population sénégalaise Anta moom dafa ñew indi stratégie bo xamné ci doxal réew mi ba nga xamné comme pétrole ak gaz bi danañ ko exploiter fii euh, produire ko fi diko consommer def consommation locale comme Nigeria, mi ngi nek première puissance en Afrique amna fa ay ingénieurs euh, ici au Sénégal dañu am tamit ay ingénieurs yo xamné ci si euh, ay experts lañ yabal nañ leen bitim réew pour ñu pour ñu jàng nan la ñuy exploiter pétrole bi ak gaz bi te incha allah euh, Sénégal dina nekk pays boo xam ne envoie de développement lay doon. Hmm. ngeen nekk jeune di accompagner candidat bu jeune maa ngi koy wax normalement yéen war ngeen mën a xam lan mooy jafe-jafe yi nga xam ni Sénégal mu ngi koy dund. alors euh, ndax Anta mooy solution bi ak lu tax moom ngeen jàpp ni mooy solution bi. waaw Anta mooy solution bi ndax ku ko xool xam ne jigéen à chaque fois dañ naan. Euh, ñaari loxo mooy takk tuwéy mooy takk sër kon ñun jigéen dañoo war a bañ ndax Libéria am nañ présidente mhm. pourquoi pas voilà mhm. pour pourquoi pas ici au Sénégal ñu am présidente mhm. dañoo bëgg système bi fii ne ak régime bi fii ne rupture am ñu am suñ présidente wóolu nañ suñ bopp de mm-hmm. ñun dañoo wóolu suñ bopp mm-hmm. jékku-jékku ñu rek ñëw rek ne dañu posé candidat dañoo wóolu suñ bopp mm-hmm. moo tax ñu dugg ci langue politique bi te incha allah danañ atteindre suñu objectif bu soobee yàlla euh, dafa am loo wax léegi euh, soxna ma jigéen lu am solo mooy euh, candidature féminin yi souvent da nga gis ni jigéen ñi bu ñu defee seen candidature jigéen du leen jàppale population sénégalaise bi majorité et composé de femmes mais gis nañ fi Mariam Won li parrainant en entre en 2004 quelque chose comme ça bi mu déposé candidature gañewul euh, am na Amsatou Sow Sidibé dem na fi élection quasiment score yi mu doon am yu si bëri euh, euh, trois candidats def annoncés. annoncé je ne sais pas si dinañ dem ou pas mais en tout cas ce qu'on voit mooy que am a déjà Mimi Touré. Mhm. am nañu Amsatou Sow Sidibé. Mhm. ak moom Anta Babacar Ngom. Mhm. alors ban message ngay lancé femmes pour nous appeler seen mu ñooñu jigéen ñi nga xamante ne ñooy euh, laaj dagaan baaru askan ngir jiite parce que euh, je pense que ba léegi dafa am préjugé Sénégal ni dañuy wax ni jigéen du ko jiite ndax lolu yow and nga ci ak lan nga jigéen ni non non comme niko Mariama Ba waxé dans une lettre la femme ne sera pas comme une objet de décoration. Mm-hmm. comme un objet de décoration. Mm-hmm. jigéen kenn du ko teg ci kër gi rek bàyyi ko def ko femme au foyer. Mm-hmm. légui dañu bëgg ñun fu goor taxaw ñu taxaw ci sen wet. ndax jigen moy mooy moo nekk koo xam bu amul rek société du dox. absolument motax Anta Babacar Ngom ñëw engagé. Mm. nek femme battante nek mm. jeune entrepreneur bo xam mm. ñepp ko reconnaître au Sénégal. motax mu ñëw ne ñëw len jappalé ma ñëw len and ak man pour ñu yobbu Sénégal fo xam si ñepp dinañ dinañ rawati na les femmes parce que jigen ñi sonn nañ. sonn nañ jigéen ñi dañ leen di maltraité di leen def lu nekk àq ak yelleef biñ biñ bi biñ yellool duñu leen ko def góor ñi ñoo war a jàppale jigéen looloo tax Anta moom mu bëgg jigéen nim ni niñ koy jàppee di ko def violence conjugale physique morale ak yooyu yëpp dafay war a jógee Anta dafa bëgg rupture am bu ñëwee ñun jigéen ñi tamit pare nañ pour jàppale ko rawatina jeunes yi parce que jeune femme yi booy xool léegi ñoo ëpp ci société bi mm-hmm. ñun dañoo pare pour jàppale sunu leader te incha allah Anta Babacar Ngom day dem. kenn du ko téye ci kàttan suñu borom bi. ok euh, léegi mu war a ñëw Thiès le 29 euh, le 29 Anta Babacar Ngom dafa war a ñëw Thiès euh, yéen a ko war a dalal loolu defe naa ni lu am solo la alors nan ngeen ko war a recevoir réception boobu nan ngeen koy préparer. waaw le 29 vendredi incha allah du yomb. Mhm. ndax suñu leader dafa war a ñëw Thiès. Mhm. te ku ne xam ne ne Thiès parti opposition moo fi gagné. Mhm. mais pas parti au pouvoir. depuis. Diouf wala Senghor ba mm. Wade ba Macky mm. parti opposition moo fiy gagné kon bëgg nañ suñu leader bii nii bu ñëwee Thiès mm. ñu accueillir ko def forte mobilisation boo xam ne si moom bu ñëwee dina kontaan dina wane ne ñun ñi engagé nañ ñun ñi liñ nekk gëm nañ ko te incha allah Anta bu ñëwee xolam dina sedd mais xam naa ne dinañ ko dinañ ko accueillir comme ni ñuy accueillir euh, ren mm-hmm. ba bu ñëwee moom danaan dam damay delluwaat Thiès Hmm. incha allah alors euh, ñëw bi euh, ay atelier lay donne? Euh, d' accord que day ñëw mais ci yenn séance yi séance de travail ci nan lañ koy basé yéen a ngi prévoir ay té débat mobilisation sociale ci nan lay demee exemple wala caravane lay doon genre kii lay doon genre Euh, teede baa lay doon mën naa ne la mhm. ànd ak moom naa ni ataaya def balaat génn xool mhm. dugg ci gox goxaat yi mhm. comme quartier yi Thiès yi Thiès moom ku ne ne bëri na ay quartier quartier bu nekk anta bëgg nañ faa ànd ak moom mu xool yan condition yi la la la waa euh, koñ boobu di jànkonteel bu ko defee moom dina mën a appuyer yu ci loolu pour pour pour pour mën a doxal euh, projet am incha allah. léegi ma jàpp ni Anta kon nemmeeku tuur lay def si seen. def fii ci Thiès lay doon waaw incha allah ñaan nañ yàlla vendredi incha allah. Mm-hmm. bu ñëwee dinañ ànd ak moom accompagner ko. Mm-hmm. mu def visite de proximité dox génn ci gox yi ku ci mel ne Daaru Salaam R100 Cité Lamine Cité Senghor Thiès bëri na ay quartier euh, grand standing fépp fépp fu quartier nekk rek bëgg nañ ànd faak Anta euh, mu xool situation yi ñuy dund. bu ko defee moom dina xam nan la war a mën a doxalee plan incha allah. Mhm. alors euh, ban message ngay lancé ñi nga xamante ne euh, tey euh, ñoom ñoo la teg fii muy équipe bi nga xam ni yaa ngi ànd ak ñoom di liggéey fii nga xam ni mooy Thiès. waaw dama leen di remercier encore une fois ku ci mel ne sunu DG monsieur Ndiaye. Mhm. moo aw ma fayam parce que moo xool ba ma doy ko mu ne ma nommé naa la chargé de communication. Mhm. te communication nekk na loo xam ne yombul. di remercier encore samay collègues ko ci mel Amina. mo nek sun secrétaire général. Euh, Codou Faye. mo mhm. euh, nek aussi euh, coordinatrice bi. ko ci mel ne aussi Yaram Fall sun trésorier mohamed Mouhamed dogguma la soo xoolee. Mhm. bureau bi daanaka jigen la. absolument xam nga motax uh-huh. ñu defal ko noonu. parce que sun présidente dafa nek jigen muy Anta. Mhm.

Mhm. parce que ndox bi xam na yenn zone yoo xam ne excès gu fi. bëgg nañ tamit état bi jàppale ñu ci. Mhm. bëgg nañ suñu leader bi aussi bu demee ba ba ba falu. Euh, problème bobu dinañu ko résoudre. je pense que lolu ñew bi mi ñew bokku na ci euh, ay euh, points majeurs yo xamni ñu wara souligner la. par exemple buñ comme da fay def ne mékkutu bu ñew leen lew ay points lañ ko mëna souligner lew amna zone amul ndox amna zone yu amagul courant. bu dé Mbène Fall ñu wax ko jafé jafe ay piste de production lañ am. bu demee dar Salaam ñu wax ko leneen je pense que lolu mo ko fi indi. mu jappalé jeunes yi surtout les jakarta man aussi tamen mu jàppale leen Anta. na leen jàppale parce que ñoom tamit nangu nañoo liggéey jaaykatu café yaa ngi fii mm-hmm. euh, ak tamit euh, lu ci bëggoon naa euh, appuyer ci benn point mooy mm-hmm. ñun daanaka suñu parents yi ci bari ay cheminots lañ waaw te te gis na léegi Transrail boo fa demee gisatoo benn train bu daw Dakar Bamako tout à fait maire yi dañ daan jaay gerte mm-hmm. ci loolu lañ daan euh, euh, mën a suturlu di ci dépense léegi yooyu yëpp amatul mm-hmm. activité yooyu yëpp dafa dafa arrêté mm-hmm. bëgg nañ Anta bu ñëwee tamit mu mu mu jàppale ci loolu mm-hmm. ba nga xam ne mooy sukkaliwaat entreprise yi nekk yi tamit ci mel ne entreprise yi nekk voilà mi ngi noonu yooy yëpp étant faillite bëgg nañ Anta bu ñëwee aussi mu mu kii daal mu jàppale leen. Mm-hmm. ba loolu noonu nekkaat entreprise yooyu yëpp jógaat. Mm-hmm. waaw merci nañ daal. merci Thiès développé daal. Mm-hmm. ku ne xam ne ne Thiès capital di raay. kon chemin de fer moo koy doxal. absolument voilà kon bëgg nañ Anta bu ñëwee mu jàppale ñu ci. jàppale tamit euh, jigéen ñi ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci seen. Euh, jigéen ñi moom macha allah ay jàmbaar lañ. ñu ngi def seen i seen i euh, groupement. di defar seeni i eau de javel. di defal seen i produits locaux. transformation yoo xam ne mise en consommation finale lay doon. kon Anta bu ñëwee bëgg nañ tamit mu jàppale femme euh, yi. ma jigéen defe naa ni li nga rafet na balaa may tëj dafa noo xam ni bëgg naa la ko laaj muy am sama benn femme bu doon waxal mu ne ma Sénégal jigéen dañ jàppee meuble de parti. Euh, ma xaw ci d'accord ndaxte bu ma xoolee politiciens yi en bu ñu utiliser femmes yi rek c'est parce que élection dafa jot ñu dem euh, ci li nga xamante ne mooy femmes yi ñu ñëw mobiliser leen sol ay xartum ay voile ak yu mais bu jeexee après ñu fàtte leen.

moom dafa dafa am yërmande si jigéen ndax moom dafa nekk jigéen ba pare am yërmande si jigéen mm-hmm. kon Anta euh, yaakaar naa bu ñu ko jàppalee rek moom dinañu jàppale ñun jigéen mm-hmm. benn lam nag du mës a yëngu nit ki da nga koy danga koy da koy da koy gunge mm-hmm. mu am force ak courage mën a dem. absolument jigéen ñi ñun jigéen ñi nag ñoo ko war a jàppale. Mm-hmm. buñ ko jàppalee rek dinañ am luñ bëgg. macha allah incha allah. ñu ngi lay jaajëfal kontaan ci toog ak yow ci li nga xamante ne mooy euh, spécial bi defe naa ni bu njëkk la te du doon bu mujj. incha allah euh, en tout cas euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. dina la wax lan mooy kàddu yu mujj yi. merci beaucoup Mouhamed kàddu yu mujj yi mooy comme maa ngi remercier sama waa bureau. Mm-hmm. sunu président monsieur Ndiaye sunu secrétaire Amina. Mm-hmm. sunu eh, coordonnatrice Codou e mhm. sunu trésorier Yaram Fall. ñëpp ñi ngi ñi ngi ñi ngi ziar waa ñi ngi ñi ngi remercier waa groupe bi ñëpp daal mhm. macha allah. Mhm. Eh, di di aussi tamit sama dëkkandoo yi nekk Léona. aw ma seen fay. ku si Fatou Niang madame Fall. Eh, Mbéri Ramatine Diogop. duma bu ma limee juum. xadisay sama mag tamit bu baax awa ndaw wax madame Guèye. walew na awma sen fay amna tamé tamit suñu benn maire bu baax mm. mohammed maire mm. Binta maire bu mana mana mana a teral ay gan machallah mm. lum yor bok nak ak ay njabotam mom tamé ñing koy remercier encore une fois di remercier walew na ñepp dal machallah jerejeuf merci beaucoup amis téléspectateurs dégg ngeen ma jigen euh, sëy won chargé de communication bu euh, arc arc nak euh, boo leen ko déggé moy alternative pour la relève citoyenne ci boobu mohammed amna na mm-hmm. sama ku ma fàtte maa sama ben ki sama ben jëwrin ñu koy wax El Hadj moom tamit maa ngi koy saluer de passage. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. merci beaucoup jërëjëf. Euh, kon euh, loolu la woon euh, kon fii nga xam ni mooy na ak alternative citoyenne pour la relève ci bopp bi maa ngi koy wax Anta Babacar Ngom ñii ñooy ndaw yi nga xamante ne ñoo koy liggéeyal à Thiès ñu amoon mbégte togg ki nga xamante ne mooy soxna ma jigéen ma jigéen Sey chargé de communication bu li nga xam ni mooy parti bi mu mel ni nag kon dégg ngeen li nga xam ne développé ko ci kon développement li nga xam ni mébét nañ ko ak seen leader 29 euh, bi di ñëw inshallah euh, peut-être ngeen mëna am les images inshallah à travers euh, seen chaîne ñu ngi leen di jaajëfal yéen tamit amis téléspectateurs ci déglu beeg topp bi saa di leen dig dajé très prochainement pour un autre numéro de vos rendez-vous spéciaux di leen dig daje kon à très bientôt au revoir